Bonjour c'est qui ça salam sama gaay bëggé na len ma ngi bëggé ñëpp di nuyu ñëpp di ziar ñëpp wa di nuyu képp ko xamné ni jamono ji ak may sétan wa ma ngi lay fekk fi nga nek mo ne jabb loxo di la nuyu bu baaxa baaxa baax ah di wax leen sama gaay nak ñi ñi jublu ci benn fête bo xamné ñu naan ko tabaski wa nek na benn fête bo xamanteni nak franchement xawna metti nak muy nak euh euh xewul la tamit quoi di ñaan képp ko xamanteni am gut xar ñu koy ñaanal bu baax baax yàlla ko yàlla may xar waaw may ko xar bu mu tabaskee quoi di wax nag ñi nga xamante ni ñoom ñoom ñooy jaay xar yi waaw nañ nañ wàññi njëg gi dañ ko wàññi waay waaw parce que euh, tabaski dafa metti waaw ak yenn fere yi ak njaboot geeg yooyu noonu xam nga waaw nañ wàññi njëg gi bu baax baax bu ko defee ñëpp mën am xar xaw ma tooñ leen tuuti comme ni ko maam di waxee quoi da nga gis koo xamante ni dafa yar xaram ba màgg mu bëgg ko jaay waaw yokk prix ba ba mu ba ëpp daal bëgg ko jaay xottil ci soxna si xotti ci xalé yi bëgg ci amaat benen xar wa loolu day metti bu ko defee ñu wañu jéggi gi bu baaxa baaxa baaxa baax bu ko wañé rek bu ko defee ñëpp dinañ mëna am xar tabas ci jamm ak salam maa loolu té ñu ko ñaanal ñëpp yalla nañ ku ci nekk ko am góor xar jamono ñi nga mësé na yalla yalla may xar tabas tabaski bo jullee ci barki sayidina Muhammad a ah, di leen wax ne leen gaay té nak vidéo bi leen rek la won benn chaîne bi ñu naan xalaat TV nekk suñu way bu baax baax waaw nekk na aussi suñu référence wa ñun dañ koy bëggé diko safo diko ndamo aussi diko ko bu baaxa baaxa baaxa baax wallahi lazim gën a yokk sama dëgg ci mom la ko jàngé ak am dignité wa parce que dafa nekk ben scène bo xamanteni da fay dénoncer lu baax wa di di di di influencer lu baax surtout di jox askan bi ay information yi claire ba paré di nekk ci wetu askan bi waaw ñi nekk ci nguur gi buñ fi joxé ay info ay ay nekk nara dox ci ay loubal mu mu mu leer lan ñu ba leer man di wax dëgg fa yàlla. man donte sax man maa ngi joxe information di waxtaan ak gars di leen jox ay information mais man ci ci moom lay xamee ay information li xew ci dëkk bi waaw parce que sama idole la waaw di leen wax ne leen sama gars yéen ñeen may yéen ñi may seetaan waaw bu nekk am na ku ma ci gën a bëgg xalaat TV man kenn gënu ma ko cee bëgg quoi man de mën naa ne man maay fans number one bu xalaat TV quoi parce que heure bu dugalee vidéo man bokk naa ci ñu koy njëkk a gis bañ na ko ba man notification xalaat TV laay bañ a gis

dafa ubbi seenam xam nga di ci dénoncé nekk ci wetu askan bi di leen leeral di leen leer dëkk bi ñu baree bari bari wallaahi lazim ñu baree baree baree bari ñu ngi may seetaan ci xalaat TV lañ lañu xamee tey exemple li xew li xew ci dëkk bi ak bagage yi baree baree baree bari moo tax tey ñu jàpp bis ñu ne dañ koy delloo njukkal parce que amuñ fayam waaw bu ñu amul leneen lu ko gën a yéeme dañ koy def wallaahi lazim parce que amuñ fayama ah. xalaat TV mi kat waaw ah, waay waaye merci beaucoup waay xalaat TV gars yi képp ku may seetaan waxal waay merci beaucoup xalaat TV en attendant quoi parce que ñun suñu xol dafa sedd ci moom bu ñu wax ci moom wallahi lazim fii ba suba duñ duñ duñ bëgg arrêté quoi waaw ah, parce que xalaat TV euh, man damay bëgg daal barki alxuraan bu may wax ci moom damay damay bëgg quoi damay bëgg lool lool lool sax quoi en tout cas ñun amuñ fayam amuñ fayam de xalaat TV moom. waaw dañoo war a sax taxawal dañoo war a sax taxawal benn sot boo xamante ni ñu ne jot na xalaat TV am un million d'abonnés dafa jot jot na xalaat TV am ko waaw parce que dafa nekk benn scène meilleure scène nekk bokk na ci scène moom mooy scène bi nga xamante ni moom rek moo fi joxee information leer moom la waaw xalaat TV ñun mooy suñu roywaay waaw ñun bu ñu demee bay gën di dénoncer dëgg nekk ci dëgg. amna sax ay yenn proposition yo xamanteni ni ay am proposer nañ moko man mi ak ñeneen ak ñeneen ci mom lañ roy ci mom lañ roy ba tax na ñun roy duñ ko nangu quoi waaw parce que xalat TV limay wax rek man moy sama roy way moy sama idole mom lay bégé mom lay safo mom lay ndamo mom lay tiitaroo man moy sama télé quoi bi nga xamanteni man mom rek lay sétane ci la jëlé information lèr man ak samay morom ak ñëpp ñëpp ñi may sétane mëna ko wax tamit waaw ñoom nag ñu yéen ñi ma seetaan nag dafa fekk man maa leen gën a bëgg xalaat am naa ci droit maa leen ko gën a bëgg maa leen koy gën a bëggee maa leen maa leen koy gën a safoo maa leen koy gën a ndamoo maa leen koy gën a tiitaroo moom moo tax nag ñu jàpp bisu vendredi bii di ñëw incha allah war koo sargal waa di leen wax ne leen gars yi dama leen koo ñan dama leen koo ñaan waaw jour vendredi na ko ñëpp wàcc ah waaw na ko ñëpp wàcc mel ni Sénégal jour bi muy jot indépendance am waaw bu ñu waaw na na na na incha allah ah man de moom xam naa ne dinaa ko commencé sax bu ñu nee suba la vendredi bu neex si borom si kàttanu yàlla waaw parce que bëgg gi ma bëgg xalaat TV ma gën ko fësal quoi waaw bu ñu nee suba la man laay tàmbali man bu ñu nee suba la man ma tàmbale man ci guddi gi mooy loolu commencé dugal samay photo quoi merci xalaat TV taxar naa si waaw jëf xalaat TV taxar naa si parce que amuñu fayam ah amuñu fayam wallaahi lazim en tout cas ñun bëgg nañ quoi bu baax a baax ci moom kon boo gars yi bu ko defee vendredi incha allah. waaj leen ko rek ñu waaj ko bu baax a baax ñu poste photo yi xam nga waaw photo yi moom incha allah euh, ku ku bëgg ci parce que parfois damay gis gars yi à chaque fois dañuy laaj kan mu bëgg photo yi quoi di profité bu baax a baax di sant sama benn bro mag ji waaw moom moo ko créé quoi moom moo am xalaat bu nice bi quoi di ko ci bëggee bu baax a baax waaw moom moom dafa nekk benn bro boo xamante ni franchement euh, damaa bëgg ci moom quoi wallahi naa si moom it ci dëggu lay dox ci dëgg et tout quoi. di rafetlu bu baax baax ci xalaat bii mu def nii quoi. Euh, moo tax ñun ñu ànd ci moom ba mu jeex tàkk mag ji merci beaucoup en tout cas quoi xalaat bi nga xalaat rafet na trop trop mooy loolu waaw dina wax ne leen gars yi euh, am na ñoo xamante ni dina ñu ngi laajte parfois dama gis ci commentaire yi fan lañ mën a amee photo yi quoi photo yi ku ko bëgg demal euh, page Instagram mag ji xam nga wala sax nga dem sama page Instagram man Zal wala Fallou wala Wees Sow wala yeneen gars yi quoi xam nga. waaw même Doudou ak yeneen gars yëpp boo leen demee mën ngeen a am photo yi foofu noonu quoi incha allah ak ay Malick ay Chima ak gars yu bari gaa yëpp ñuy bëggee xalaat boo leen demee foofu yéen da ngeen am photo ak ak ak ak mboolem ku nekk Facebook influenceur yëpp waaw ñëpp boo fa demee foofu da nga am photo yi waaw di bëggee influenceur yëpp nag waaw ñi nekk Facebook waaw bu ma bu ma bu ma limee bu ma bu ma limee tur rek damay jum quoi. ñu nekk Instagram TikTok ñëpp waaw maa ngi leen di bëggee bu baax a a baax quoi affaire moom nii la.

merci beaucoup Khalat TV man dèjà Nena, merci beaucoup Khalat TV te xam naa maa leen ko njëkk a bind ci suuf ci commentaire yi merci beaucoup Khalat TV mille fois amuñ sa fay merci beaucoup Khalat TV waaw kontaan rek ak mbégte rek xool laay waxee sax wax dëgg fa yàlla mooy loolu merci beaucoup Khalat TV jërëjëf gars yi kon vidéo bi loolu la woon merci beaucoup Khalat TV taq ci commentaire yi. waaw ñu xool ñi bëggee xalaat TV ñëpp waaw ñu xool leen quoi bu ko defee kon gars yi vidéo bi loolu woon merci beaucoup ba vendredi incha allah man Zal maa ngi commencé sama sama samay publication merci beaucoup xalaat TV merci beaucoup ñëpp ñu ma doon seetaan bëggee naa leen jaaj jaajëfal naa ñëpp yal na leen yàlla defal jàmm may ñu tabaski jàmm incha allah kon gars yi ba vendredi merci beaucoup xalaat TV na jub ci suuf na jub ci commentaire yi merci beaucoup xalaat TV yëpp.